siyaar bu a baax ana yan kàddu ngay wax ci bis bi Serigne Ato mi nga xam ne liggéey suñ Tuubaa ba ci ñëw fii tey ci Baqiya waaw ndax li ci disit rek mooy sant sant suñu borom lu wax naan suñu borom lu mu nam rek noonu la waaye lii nag dal na xel bu baax a baax a baax lii day firnde ni liggéeyal suñ Tuubaa dara gën ko ci kaw àdduna dara raw ko ci kaw àdduna te boo gisee di li ko tey murid yi defal war nañ cee sant yow yow yow yow yow ci wér-wér gën a waat gën a jaantewaat xam ne liggéey suñu tubaab dong dong fi des. lan moo la gën a marqué ci jëmmam moom sëñ Atou. suñu àddee pas-pas bi. Mm-hmm. pas bi moom gën a marqué ci moom ndaxte pas bu yéeme yow la yow la am te monde bi yëpp dañ ko taxaw seede ko li sëñ Saliou waxoon ci benn jëmm ni Mouride Sadikh la. Mm-hmm. moom ñëpp seede nañu moom Mouride Mouride Sadikh la. ñu ngi lay sant bu baax wax di la gërëm macha allah tabaraka allah. nuzzi ali nuuru lisaani wal أزمان خدمتي لدى أهل الكتاب تزيل ما صبت للمشفع أغنى يميني عن أذى ومدفع هداني الله وزاد اللعين إلى سوى عمري حبذا المعين هداني الله وزاد اللعين إلى سوى عمري حبذا المعين سبحان ربك رب العزة عما